géejawaay ab maire boo xam ne lañ lañ lañ fal Ahmed Aïdara ci ay micro laay waxee Ahmed Aïdara kuy dóor ci Sénégal moo la dàq dóor xam na xam naa barki alxuraanu karim damaa woor bu defee revue de presse ba pare ba wàcc otom lay taal yàgg la daje café de Rome mu ñëw encaissé ku bu la tuddee da lay woo nga encaissé nga jox ko lu nga ko jox mu ànd ak ay nitam barki alxuraan ko damaa woor billahi wallahi tallahi yàgg nañoo daje ci ay bureau muy dugg ci ay ministère di dóor lu mu am journaliste mayu ko ko ay journaliste ñu ngi fi ay buur amuñu sax dañuy loué ay deux am salon la ñu yor wala benn chambre salon ay ñeneen ak ñeneen ay Babacar Fall ñeneen ak ñeneen mais journaliste bu am sept oto huit oto dóor kat la man maa ko am na ay dara bu waa géej demee ba di jox ko seen mairie ñun daf ñu doon dóor am xam ne yor naa ay orange mën yoo xamante ne man maa doon envoyé envoyé mu ngeen man bu ko na mu mu porté ma plainte yóbbu ko ci kanam procureur donc bu ñëw ñu ne ñoom ñooy ngor gor yi bu ñooñu ne ñoom ñooy guerrier yi bu ñooñu ne ñoom ñooy les patriotes ñun lan la ñu doon ñun ay lan la ñu sénégalais nan la journaliste yore 4 oto 8 5 oto nan la journaliste yore ay kër nan la journaliste ñu ne ko yow revue de presse bi da nga koy waroo wax lii da war a bàyyi lii parce que loolu du ko bàyyi parce que loolu moo yor këram parce que revue de presse kese mayu ko xaalis bu revue de presse ay nit bu paree day chantage ay directeur ay ministre ñu koy jox xaalis loolu mooy liggéeyam loolu mooy liggéeyu Ahmed Aidara ci micro laay waxee te man maa ko wax j'assume mes propos bu weetee am naa photo yoo xam ne ñun ñoo man ak moom ñoo toog café de Rome mu wàcc wàcc jóge rajo bi jaar café de Rome daje fa am na ay orange mën yoo xam ne numéro am la ak sama numéro man maa ko def envoyé donc nañu delloowaat suñu xel yi delloo suñu xalaat xam ne Sénégal bii nit ñi duñu ay yambar bu ñu noppee nag waxuñu nag dañoo bëgg a doon ay homme d'état mais bu ñu waxee nag am nañu lu ñu war a du ma ko tontu ndaxte man moom lu ma ko wax dama dul dama maanu ci lu bëri mais nag ay photo yi nii ak yeneen ak yeneen ay message ak bu may nekk Gabon ak tournée Pape Diouf ba xamante nañ xam na xam naa donc lu ci du ma sori ci weeru ko la ñu jërëjëf